inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bokk internet yi ñu ñëw ak yéen ci xibaar boo xamante ni ñeel na Pape Diouf Pape Diouf nag mu ngi tolloon ci 68 ans moom sax euh, nekkoon na ay jamono euh, président bu olympique de Marseille ci atum 2005 jàpp 2009 moom nag Pape Diouf ginnaaw bi nga xamante nii feebar bi di covid 19 moo ko daal di woon a jàpp moom Pape Diouf nag daal na wuyu ji boromam ni ki tey ci talaata bi moom nag bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ni RTS daal nañ koy joxe moom moo bokkoon na ci ñaari patient yi nga xamante ni seen cas daal di woon na grave ba tax na sax moom Pape moom le euh, dañ ko waroon a yóbbu euh, fi nga xamante ni moom moo di France ngir mu yegg liggéey foofu euh, traitement bi waaye nag Pape Diouf daal dina ñàkk bakkanam ci feebar bi coronavirus